bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires macha allah macha allah fas yéene dellusiwaat tey jii ci kàttanu yàlla ni ñu ko fi baaxoo di defee. Euh, te nag mbokk yi xam naa ne fan yi yëpp euh, macha allah tata ñuy gàtte ci ñamu jën yeeg ñamu salade yeeg ñamu lay yuubi yaabaa gi demee ni ki noonu mais tey jii incha allah ci kàttanu yàlla euh, dañu fas yéene delluwaat ndànk rek ci teew gi <laughs> maanaam ci ndawal gi yàpp xar wi fi mu ne nii mel ni dellusiwaat na ci xel yi. ba tax na tey incha allah dañu fas yéene defar ceebu yàpp safran voilà ceeb yàpp safran sama yaay daf ko daan togg lu bari moom tamit mère Diop macha allah. Euh, sama mam bu aja Adja Marème Diop xaali ñom ñaan ñep ñi ngi leen di ñaanal fa la ñu ne gënal leen euh, fi ñu jógee yàlla euh, wacc yermandem ci seen kaw labal leen ci geju yermandem gogo yalla ñu ko yalla defal defal ko seen mbokk yi yep ma sha allah voilà sam mam nag moom ma sha allah sha allah togg rek la sam mam mariam Diop khali doon def doomu dandar bu mag bi voilà mbokk di wax ne ni ngi gis ni ñu ngi fi ak suñu yàpp xar yàpp xaru tabaski baa ngi nii euh, li fi nekkoon ñu yëkkati paaka bi di jéggalu euh, ñi ngi fi ak suñu merguez merguez bi defaruma ko bi yoon bi merguez syrien yi la euh, keroog dimanche macha allah dama demoon Paterson ci coin boobu nga xam ne syrien yeeg turc yeeg ñooñu rek a fa ne yor ay baax baax yoo xam ne mar ba yem si kenn mun leen a wax ni mu mel voilà lii ñu gis ni laxas bi la ñi ma doon laaj naa leen defal vidéo wu laxas incha allah laxas baan ci yoon bi foog ñu laxas ko Euh, suñu yàpp xar ngi nii. ay mangoog macha allah lële ne suñu soble bi la léegi ñun suñu ceebu yàpp safran bii tey euh, dafa am ay génnukaay yoo xamante ne incha allah fas fala fas yéene génneeg moom. Euh, lu ci mel ni gis ngeen épice bi ngeen di gis nii kii samay ñama-ñama la voilà sama ay plus bi moom laa boole ak sama beneen seasoning boo xamante ne ci kàttanu yàlla saveur ak leen koy waajal incha allah yal na yàlla may ñu ñu mottali yéene yeeg yëpp. li ñuy gis nii euh, tajine spice la donc épice bi euh, suñu mbokku marocain yi ñoom ñoo ko jàmbal seen bopp ba pare di ko def ci seen tajine yi moom mën nañ leen baaxee léegi ah. gis ngeen nii këf ki nii la mel emballage baa ngi nii donc épice tajine la euh, composition yi nekk ci biir am na gingembre am na poivre moo maanaam am na ginjeer am na poobar am na cumin ak tuuti xorom am na curcuma mooy suñu bu bu neex ba rek turmeric bi am na itamit nu ñu koy woowati beneen ba coriandre moom mooy euh, persil waaye doom ya ku ko amul jël sa persil chinois rek nokkas na ko ci tuy voilà ndax dañu bëgg ceeb bi jaune ba gis boppam voilà donc li ñu gis ni laaj la mooy garlic ail lii poivre la poivre blanc bi lañ fi am moom it dama ciy dem ndànk ndax bu ñu fàtte suñu euh, épice tagine bi euh, am na poobar voilà li ñuy gis fii nii moom tamit tey amuma safran cuuj cuujal gi mais maa ngi fi ne ak pëndax bi nga xamante ne Euh, food colorant la euh, journal euh, ñam wi te tamit voilà mom lay def ci payla paillettes. donc suñu xoro ma ngi ak suñu feuille de laurier xam ngeen sama sauce de soja la tay sax jëluma bi gëna parce que bëgguma dara lu xajamal suñu couleur bu jaune bi ñu soxla voilà donc bëgguñ lu xal dañu bëgg lu ñu ko relever kàddir gaa ngi nii di tege comme ni ñu ko gisee nen ni caméra ñëw doxantu ba boor yi macha allah te ceeb bu sew lañ ci fas yéene suur tey euh, sànni naa ci tuuti ci diwlin gi. ak euh, bismillah macha allah mbokk yi gis ngeen ni suñu gën ñi ngi fi ak suñu soble ñoble gi ak euh, suñu laaj léegi gis ngeen fii dañuy ñëw njoos ci poobar bi voilà ne ci teel suñu food colorant bi dañu ñëw ne ko ci it mën nañ ko def defale waaye nañ nañ la rek gën gi man man gën gi xaw ma ci lu dul prendre tous les yóbbu ba nekku ci tuy très bien gis ngeen ni suñu ay euh, plus bi mi ngi nii suñu euh, ñambaan si ma leen waxoon ne leen pour euh, ñambaanu tagine bi la moom laa ci sànni léegi di fàttali mbokk yi rek ne ñambaanu tagine bi épices yooyu ku ko amul jëlal ma ndànk sa kuddu kari waaw kari bu neex moo xam kari jamaïcain bi wala kari endu bi kari boo am rek coppatil ma ci sa benn petit kuddu rek ne ko ci tuy xool lu bëree bëree bëri bëri ngay am macha allah macha allah ay bismillah donc ñoom ñu ngi noonu ñoom laa may petit nokkas tey moom du ma ci sànni euh, famille verte ñoom cokkale géeg yooyu tey duma leen ci kifin mel na ne diwlin bi tiit na danga ne ñu zumaat yëf yi good léegi nag damay ñëw njoos ndànk ci xorom si mu judduwaale ay bismillah daal di jël ndànk ndawal bi daal ci sànni rosi très bien ay ah, très bien mbokk yi gis ni macha allah léegi suñu yàpp yi teg nañ ko daal di ci sànniwaat tuuti xorom ci kaw mu judduwaale naka moom may ko tuuti feuille de laurier moom it ñu jàpp foam ay ah, très bien macha allah mbokk yi ñu ubbi suñu kàdde yërnu suñu ndawal yi ah gis <laughs> ngeen mi commencé xonq ndànk suuf négal ma yokk ko bi dama ko wàññi woon voilà gis ngeen ko ni mu commencé yàq quoi léegi man comme ni ma leen koy waxee rek saaf yàq moom bokkul samay affaire comme benn côté bi am na tuuti couleur daal tiit na sama wax bi ci bari nga nu may defar dama ñëw ñamal ko nii tuuti ci suñu ñubu yaaba bu jaune bi mu gën a commencé indil ñu couleur bu jaune bi ñu soxla woon gis ngeen ko nii voilà voilà mooy nokkas bi ñoom it soble ñoom it laaj ak épices yi ñu boole woon voilà ouf laaja ngay julli laaja ngay julli léegi su ko defee fi mu ne am na soble yoo xamante ne dama ko fejete woon waru tataayaan bi grossièrement négocié réel su ko defee muy saafaal saaf soble bi di rotiraale ñeexu soble bi di ci génn ak yóbbu yàbb yi nga xamante ne ndawal bi du wow ba pare dana jàpp couleur bu toog macha allah aywa très bien macha allah gis ngeen mbokk yi këf gi gis ngeen leen ni ñuy déggee jàmm ni di jàpp koom ni daal la ñuy def ak moom rek waaw léegi fi mu nekk nii sax mën naa ci ne réel suñu tuuti sooy soos bi man boobu mu relever ñu couleur tuuti rek voilà nga mën jox sax tuuti ci suñu nokkas bu neex bi tere bii bu ko defee desit bi balaa ñuy sóor ñu ñu ko ci tuy nii dong lañ ko fas yéene defee incha allah nii kese lañ ko fas yéene defee mbokk di wax na tey suñ ceebu yàpp safran bi dañ fas yéene yekkal samay bàjjen ak sama ay euh, rakku papa euh, sama bàjjen maam Khady Niang xaali xaali euh, mata ñang buy sigi ak sama bàjjen Assou Niang yaayu Mariam Mariam wan sama cousine ak ñoom Zeyna fële ca Canada fas yéene ci yekkal ñoom Pape Cheikh ak ñoom Pape Moussa ak Abou Anas ak El Ana El Bachir Balma El Bachir ñoom ñëpp daal bàyyi ñu kenn dellu rëbës nag yekkal ci Ablaye <laughs> waaw waaw Ablaye wan ak chéréem awa <laughs> di wax na daal euh, macha allah yi ci ciy yekkal ñoom tonton Tafa ak ñoom tonton Aziz ak euh, ñoom Mame Diarra suñu euh, yaayu ndaw yooyu ak ñoom day yande yande bi allah mbokk yi léegi gis ngeen nii balaa muy ñulu gis ngeen li ngeen di gis nii nag meeg la mooy muskaan maa ciy njoos man waaw maa njoos tuuti ku mu neex nga bañ ko ci def mais man maa ko ci naan buy fase ko sama kanam waaw daal di jël ndànk ndox mu tàng mi daal di ko may pëtt ñu lu gis nga yëf yi daal di gaaw a jóg télé bi gis ngeen ko nii moom boo fi amee pox pox bu ko defee du ma ko toggal soof soble nee naa leen balaa may soor nokkas de laa ñëw ne ko ci tuy voilà merguez bi du ma ko toggee fii ci cin li parce que bëgguma mu yàq guubu kàddir gi épices ci nekk ak yooyu bokkul ak épices yi nekk ci merguez bi ba tax na li may def mooy Euh, merguez bi dama koy teg na ci pool bi na duma ci def diwlin du ci def dara bàyyi ko noonu rek parce que en général merguez yi day niin mën naa tànk sax tuuti ci ñeex sii rek tuuti rek euh, teg ko ci na moom mu dégg jàmm ma tegee ne ci wet bi parce que moom après dañuy décorer euh, suñu ceeb incha allah bu ñu paree jël suñu cornichon xam incha allah mbokk yi gis ngeen ko ni taal nañ suñu kii jël merguez bi teg ci nega ma njoos nii tuuti rek ci diwu ceeb bi ne rek nii tiitalee na taak ma bàyyi ko fere bi leen naka ma bàyyi leen ci ñu sëpp sëpp ñëw waaw daal di ko tey incha allah gis ngeen ko nii fii laa ko bàyyi muy def ay bagage am ne ndaw bu ma pare ñëw daal ci jël mu ñëw wàññi ci foofu fii ko dagg samay condition samay petits yam ku am sa oignon blanc nag moom mooy soble su ndaw ndaw su neex soosu nga euh, mbokk yi gis ngeen ni suñu këf kaan gi jàpp forme ba dee léegi dañuy ñëw rek dal di jël ndànk suñu dëstu nokk si ne ko ci réel voilà gis ngeen ko ni suñu ko nokk ci lañ naaree parce dañu ñëw euh, ma sha allah sha allah sha allah mbokk yi gis ngeen ni tank nañ tuti ci ñeex bi seppi laxas yi teg ko mer merguez yi nekk ndax la bi moom dama bëgg mu may ñu benn ci doore fofu dañu ciëb bi ñu tay man ciëb bu sew laay sóor mais ku ko sóor ciëb bu dijj lu bari ngay am ayo bismillah gis ngeen ko ni dañu ñëw sóor ciëb bi waaw dañuy ñëw sóot ceeb bi très bien co mu nga très bien gis ngeen ko nii léegi damay ñëw nag ub ko voilà gis ngeen ko nii dama ñëw ub ko donc dama ko def ceeb bu tooy dama koy weseñal ndax bu ñu fàtte yu bu yaaba yee maa ngi ne di leen fejjate maa ngi ñëw léegi incha allah wan leen fi mu góob ma yàpp yi ndax dama bëgg yàpp yu tànc ceeb bi

dama leen bëggoon ñuubiyaab yi ñu amee fii mu ngi ne ay poivron yu ndaw ndaw yi la bébé poivron yi moom laa def ne ay rondelle dama ko fas yéene teel mu ñëw fii rek bokk ci coow ak cornichon yi gis bu ko defee ñeex ñu ma tànkoon fii ci ceeb bi ci ñu lu ba mu ñëw bokk ci ci coow li sa mbax loo gisi très bien ku am sa oignon blanc nekk ci tuy waaw mooy oignon yu weex yooyu mu yokk ko bi parce que yéen bëgguma mu ñor xaw dama ko tiiteel rek daal di jël ndànk sama raisin sec waaw jël ndànk raisin sec bi ñoo ko ci tuuti comme ça ñuy yëg ay dara luy toqam toqami noonu lu suwit rek voilà terre bi mën nga ku mu nekk nga bañ ko ci def ku mu nekk bu ko ci ne tuuti maa ko ci ne tuuti voilà. ko defee ñu ñëw jël olive bi moom it may ko ay rondelles yu yem rek ne ko fii yëpp bokk sa mboq bi comme ça bu ñu paree rek daal leen wasaare ci comme ça. aywa très bien mbokk yi ceebu safran bi jàngal laa ko tuddee suñu jàngawu ceebu safran bi suñu vinaigre de riz bi nii téere wu ko saa moom la ñuy ñëw rek roose ko ci waaw arrosé ko ci ba mu ñeex nga xamante ne dina xaw a forox xaw a siit xaw a jàpp ay mbokk yi macha allah macha allah wala quwata illa billah macha allah suñu euh, ceebu yàpp safran pare na euh, gis ngeen ni moo ko ci defee nii macha allah xam ngeen rek <laughs> ay affaire u saveur euh, jël suñuy merguez ak suñuy laxas ak suñuy cornichon ak suñuy ay yuubu yaaba ak suñuy kii nekku ci cas waaw cas laa ko ci def fas sama kanam waaw du am ne que ni ma leen ko waxoon ci njalbeen gi rek eh, ceebu yàpp gi dama ci fas yéene yàkkal samay rakku papa yu góor ak yu jigéen yëpp macha allah samay bàjjen eh, sama ñoom bàjjen ak suñu xaali ak ñoom eh, mam xadi ñang xaali macha allah sama ñoom papa papa Aziz ak sama papa Tafa ak seeni soxna ñoom soxna maam Diarra macha allah ak soxna Yande Yande Diop di leen ziar ñoom ñëpp ak sama cousin yeeg sama cousine yeeg ñoom ñëpp bañ fi nekk lim rek muy gudd. waaye di ci yàkkal sama rakk bu jigéen boo xamante ne su ñaari yaay ñoo bokk ndey baay ñu naan ko ndey Penda Jaxate fële ci yaraax doomu Binta Jóob yaayam moo ma yar moo ma boot boot samay mag ak samay rakk macha allah yàlla yàlla dëgëral taxawaayam yàlla barkeelal ko njabootam gii mbokk di leen wax ne incha allah bu fekkente nekk ci ko euh, tamxarit gi ci kàttanu yàlla yal nañu yàlla may ñu fekk ko total ko comme ni ñu ko baaxoo di waxee euh, soxla ngeen ganaar waaw soxla ngeen ay kokole cuuju ganaar yi fii ganaaru prématuré yi fële soxla ganaar gu ne mbullu mbullaaral <laughs> mais kaa leen xool ma macha allah sama rakk bu jigéen bi ma leen di wax nday penn jaxate eh, ma nga cay yar yu am maanaa yarin gu sel waa ci anam yu sell macha allah donc eh, di leen fa recommander rek ci kàttanu yàlla eh, numéro am dafay nekk 77 612 34 86 77 88 baal leen ma ba bee toj 77 612 34 88 voilà donc numéro bi fofu non ci Sénégal ma nga yarax machallah euh, yor yor laye bu muccu ayib machallah euh, euh, donc numéro bi day 77 612.